jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi am mbégte ànd ak yéen ci seen spécial entretien bi nga xam ne donc ñu ngi ciy ànd ak ki nga xam ne moom mooy kilifa ak euh, bërëb bi nga xam ne moom mooy hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba. Euh, sunu entretien nag dafay jëm nag ci li nga xam ne moom mooy euh, wàccaay màggal Touba bi ak bërëb yi nga xam ne maanaam wala service yi nga xam ne ñoom la ñu gën a xaarandi seen liggéey ci biir màggal gi naka la ñuy taxawoo askan wi ak tamit li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu tamit visite ministre bi nga xam ne nii amal nañ ko. kii démb euh, yan jéego la ñuy dox maanaam ngir maanaam taxawu hôpital bi ci màggal gi waaye tamit ak personnel bi nga xam ne moom la ñu xaar mu war a ci bi nga xam ne bërëb bi moom la ñuy liggéeyee ci diirub màggal gi yëpp docteur Mokhtar Lo directeur hôpital Matlaboul Fawzeyni moom mooy sunu gan mbokk yi ñu bàyyi ko mu nuyoo bu ko defee ñu jublu ci waxtaan bi docteur ñu ngi lay euh, maa leen di fay euh, sëñ Jaxate di nuyu seen téléspectateurs yi. di leen dalal fii ci hôpital di am mbégte di leen dalal fii ci hôpital Matlaboul Fawzeyni euh, ngir waxtaaneek ak yow euh, lu jëm ci waajtaay yi nga xam ne moom la hôpital bi jéem a jël di ko def jëmale ko ci màggal gu mag gi di ñëw. Euh, ñu tàmbale ko ak ki nga xam ne moom mooy ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr moom ñëw na ci bërëb bi visité bi amal fi waxtaan bu yaatu ak service yi nga xam ne moom moo nekk ci bërëb bi visite bi ndax mën nga ñu see dikkaatal. waaw donc euh, jëwriñ ji nga xam ne moo yor wàllu wér-gu-yaram ci biir réew mi démb dafa ñëwoon Touba bi mu ñëwee itam euh, ci biir hôpital Matlaboul nii ginnaaw bu mu visité hôpital bu mag bi nga xam ne moom la ñuy tabax fee jëm ci euh, yoonu Daaru Musi bi jaar na fii ci hôpital Matlaboul Fawzeyni ñu doon fi présenter maanaam disposition yi nga xam ne moom la région bi jël ngir mën a waajal magal bi donc mu nekk réunion boo xam ne bi bi muy ñëw dafa ànd ak délégation boo xam ne bii mooy collaborateur am yi nekk ndakaaru maanaam directeur yi nga xam ne ay directeurs généraux lañ ak yeneen directeurs yi ak ñi ànd ak moom fii ci biir région itam ñu ñëw pour mën a xool euh, ci présentation médecin chef de région docteur Dieng yan matuwaay la ñuy jël ren pour jëmale ko ci waajtaayu màggal deux mille dix euh, deux mille vingt et un donc euh, kon fekkente ni maanaam hôpital bi ñëw nañ fi di fi présenter li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu màggal yëpp mais am na pàcc bu ñu jagleel hôpital bi. waaw fii ci hôpital bi li nga xam ni moom moo ci euh, wàllam mooy hôpital bi dafa nekk hôpital de référence ci biir région bi euh, kon euh, bërëbu fajukaay yi ndaw ndawaan yi bu ñu amee ay jafe-jafe seen ay malade leen di indi fii ba tax na hôpital at mu nekk buy jëm ci màggal gi itam day jël ay matuwaayam te matuwaay yi li nga xam ne moo ci liggéeyam li ci ëpp solo mooy fexe ba euh, ñaari fan yi nga xam ne moo jiitu màggal gi ak bisu màggal gi ak ñaari fan yi topp ci màggal gi ñu def juróomi fan yoo xam ne bii dañ koy faj euh, ñi fi ñëw di faju si euh, te bi ñu fay dara dañuy dakkal sax liggéey yi ñu daan liggéey naka jekk daal di jëmale liggéey bi yëpp ci wàllu urgence yooyu maanaam ñi nga xam ne dañoo am ay jafe-jafe doon ñëw di màggal si am ay jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram ñu fexe ba bu ñu ñëwee ñu mën a leen taxawu te du am len lu ñu xam ne moom la ñu fay ci seen xaalis maanaam ci wàllu consultation yi wala ci rajo yi wala ci analyse yi wala ci hospitalisation yi ba ci intervention yi euh, même paj mi sax garab yi ñuy joxe itam garab yi nga xam ne am na ci biir hôpital bi pharmacie nationale d'approvisionnement di ko joxe yooyu yëpp dañ koy la leen koy jox te duñ ci fay dara loolu mooy taxawaay boobu loolu nag pour mu mën a nekk day laaj euh, maanaam ay moyen moyens yi maanaam hôpital day euh, jël lu mat budget juróom-benn fukki million ak juróom yoo xam ne bi daf koy dégager mu jëm ci euh, waajtaayu màggal googu ak organisation màggal googu euh, loolu am nay médecins yu koy séq Euh, am na itam ay infirmier ay sage femme ay technicien supérieur ak ñeneen ñeneen di jàppale ak ñoo xam ne sax dañuy jógee Dakar ndaxte maanaam personnel hôpital bi mi ngi toll ci 430 agents maanaam ñeenti téeméer ak fanweer waaye am na lu mat juróom-ñetti fukki nit yoo xam ne bi Ndakaaru la ñuy jógee ñeneen ñi nekk ay médecin wala ay infirmier wala ay sage femme jógee ministère de la santé wala ñu jóge lu mel ay hôpital Tivaouane wala ñu jógee ci li ñuy wax SAMU ak euh, fi nga xam ne mooy euh, syndicat santé yi nekk biir Dakar yooyu yëpp kenn ku nekk day yebal ay ndaw yoo xam ne dañuy ñëw fii su ñëwee jàpp ci liggéey bi pour que ñu mën a saytu maanaam euh, wér-gu-yaram mm, kii pèlerin yooyu parce que bi ñu ko xaymaa ci at yi weesu dañuy jàpp ni at mu nekk ci biir hôpital bi nañ am lu mat ñeent ñaari junni nit yoo xam ne bi dañuy ñëw ci pèlerin yi màggal si léeg-léeg yu ñëw fii ci hôpital bi di am ay jafe-jafe donc ci loolu ñuy am comme jafe-jafe nag am na ci loo xam ne ay urgence la maanaam urgence médicale wala urgence chirurgicale wala wàllu maternité wala wàllu pédiatrie booy xool yooyu mooy yi nga xam ni euh, mooy ëpp ci euh, li nga xam ne moom la ñuy jànkonteel fii ci biir màggal gi juróom fan yooyu te moom la ñu a préparer aussi pour mën a xool nu ko mën a toppatoo. alors ko dee waajal euh, dafa mel ne service par service ku ci nekk wala boog am na ci service yoo xam ne moom la ñu gën a xaarandi ngir ñu mën a maanaam intervenir li nga xam ne moom mooy màggal gi say services yooyu boo ñu ko doon limal yan ñoo ci gën a maanaam jàppandi ba gannaaw bu urgence bi taxawee waaw ndaxte li nga xam ne mooy li ñu war a taxaw ci biir màggal gi mooy euh, dañ koy maanaam def priorisation euh, bu priorisation bi amee euh, ñi ci jiitu mooy urgence yi nga xam ne bi ay urgence médicale lañ walla chirurgicale tey boo demee service urgence daan boole urgence médicale yi ak chirurgicale yi waaye su màggal gi ñëwee ci juróomi fan yooyu dañuy def ñetti dañ koy xaaj ñetti pàcc pàcc bu njëkk bi mooy def tri maanaam ku ñëw ku euh, ambulance évacuée wala nga daw sa tànk wala oto indi la fi particulier boo ñëwee ci ñoom nga ñu ko jot. bu ñu la xoolee bu dee li nga am dafa nekk urgence médicale maanaam lu mel ni ay tension wala ay diabète wala yu demee noonu wala ay biir yu daw wala ay wocc wala ay niir ak yu demee noonu ñu yóbbu la ci ñu ngi xam ne ñu jël ci problème urgence médicale yi bu dee urgence chirurgicale la. maanaam jëm ci wàllu ay accidenté wala biir yu war a ñu war a opéré wala yu demee noonu ñooñu dem yóbbu la ci ñi nga xam ne ñooy chirurgien yi def affaire urgence chirurgicale bu dee affaire bopp nga xam ne nga gaañu ci bopp yóbbu la foofu bu dee aussi affaire euh, urgence euh, maternité la maanaam tam loolu tam da ciy am yóbbu la ci ñi nga xam ne fa la ñuy yor affaire euh, jigéen ñi te itam am na beneen service boo xam ne moom mooy toppatoo wàllu urgence pédiatrique yi ñi nga xam ne mooy xale yi tout tànk yi mu nekk ñeenti pàcc yoo xam ne bi benn bu nekk li ko tax a jóg mooy fexe ba ñii ñëw te nekk ci ay situation xam dañoo yàkkamti ku leen faj mu leen faj faj boo xam ne faj bu gaaw lay doon faj bu mucc waaw euh, docteur kon euh, ci maanaam dispositif bi nga xam ne ni maanaam jël nañ ko bun euh, nañoo wax ne maanaam service d'urgence yi bokk na ci moom mooy priorité ak yeneen service yi topp gannaaw bi nga xamante ni def ngeen maanaam présentation bi ak le ministre. waaw waaw booy xool maanaam service d'accueil des urgences bokk na ci service bi nga xamante ne bii mooy ëpp lu muy jot ci ay cas. malade yoo xam ne bi dañuy ñëw ci màggal gi euh, te service boobu boo xoolee bu ñuy euh, def juróomi fanu consultation yi ci màggal gi dañ koy xaaj ñetti xaaj am na benn pàcc boo xam ne bii moom mooy def tri maanaam tey ku ñëw ci hôpital bi di faju si bu la fi ambulance indee wala nga ñëw ci auto particulier wala say mbokk indi la fi ñoom ñoo lay njëkk seet léegi bu ñu la seetee bu dee urgence médicale la ñoom ñu yóbbu la ci ñi nga xam ne mooy médecin yi gérer affaire urgence médical yi bu dee tam urgence chirurgicale la loo xam ne dafay laaj léeg-léeg ay opéré ñu yóbbu la ci chirurgien yi chirurgien yi daal koy saytu am na itam équipe boo xam ne bii moom urgence euh, tout tànk yi maanaam urgence pédiatrique moom lay toppatoo dañ koy xaajale moom itam mu nekk équipe boo xam à du bokk ak euh, ñeneen ñi ñu mag ñi euh, am na tam bu urgence boobu jàllee service maternité nga xam ne ñoom itam wàllu jigéen ñi jafe-jafe yi ñu am ci wàllu wasin ak yu demee noonu wala opération césarienne ñoom ñooy ñëw euh, jéem a toppatoo euh, seen jafe-jafe ci service maternité bi. am na tam bloc opératoire bloc opératoire moom maanaam bu urgence chirurgicale xoolee malaat bi ba gis ni kii dafa am accident wala am ay damm-damm. wala mu am euh, problème biir boo xam ne dañ ko war a opérer dañ koy yóbbu ci bloc opératoire bi ñoom ñu xool chirurgien ñu fa nekk. ñu jël seen ay matuwaay pour mën a fexe ba opérer ko euh, mën ko taxali ko ak jafe-jafe yooyu ma amoon ci wàllu chirurgie. mais yooyu yëpp day fekk ne maanaam euh, renfort moom mooy ñëw. Euh, yéen déjà yéen anticiper ngeen ko par rapport ak ci période màggal yi nga xam ne affluence bi commencé naa am heure de travail bi ak par rapport ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk service yi dafay yokk pour assurer 24 heures sur 24 wala da ngeen di maintenir li nga xam ne moom mooy position bi ci fan yi ñu toll nii liggéey bi commencé naa gën a yokku ndaxte màggal gi am na ñoo xam ne dañuy teel a màggal si am na itam ñoo xam ne bi euh, dañu nekk ay commerçant wala di yaxantu di jënd ak di jaay di indi ay bagages di ko delloo yooyu mooy tax ba dëkk bi day tàmbale xat dëkk bi itam day tàmbale bari ay gan te euh, maanaam ouvrier yi ne ci biir dëkk bi yëpp itam ak kër yi foo dem nit ñi ñu ngi def ay waajtaay di def ay préparatifs pour fexe ba di defaraat seen kër. ouvrier yi seen liggéey day gën a yokk lu mel ni menuisier yi wala maçon yi wala plombier yeeg yooyu kenn ku nekk yaa ngi ci secteur bi nga nekk seen liggéey day gën a yokku te loolu day am jeexital ci doxalinu hôpital bi day am jeexital aussi ci liggéey bi ñuy liggéey fii ndax léeg moom ay accident léeg-léeg ñoo ñooñu di am ay feebar yu demee noonu dañ koy indi ci hôpital bi ba fi mu nekk nii jamono bi may wax nii soo xoolee li hôpital bi daan def ci wàllu activité yi gën di yokk service boo dem fu ci mel ni urgence daanaka day fees yeneen service itam dañuy bëri ay malade parce que loolu moo koy indi waaye bu ñu demee nag ba yegg ci euh, maanaam ni ginnaaw suba la màggal gi activité yi ñoon def nga xam ne ay consultation normale la consultation simple la yu mel ni bloc opératoire yooyu dañ koy arrêté léegi waa bloc ñoom di jéem lijjanti urgence yi kese maanaam fekk renfort boobu ñëw Euh, bu renfort bi ñëwee léegi ñoom ñu ànd ak ñoom di lijjanti xeetu opération yi nga xam ne ay opération urgence la parce que léeg-léeg ay damm dam ak ay fracture moom moo ci ëpp euh, am na itam yeneen ay feebar yoo xam ne bi ci bopp la nekk ñu gaañu ci bopp wala ñoom ay problème biir yu metti ñu war ko opérer ñooñu euh, bu ñu ñëwee léegi équipe bi bu ñu ñëwee ànd ak ñi fi nekk dañuy àndaat continuer liggéey boobu ci bloc opératoire bi ñoom guddeeg bëccëg dañuy dañuy opérer alors donc euh, kon day tey am ngeen xel mu dal ci li nga xam ne moom mooy euh, màggal gi ci ni ngeen koy waajalee daal dëgg-dëgg. waaw euh, matuwaay yi nga xam ne moom la laaj ñu ngi koy def at mu nekk ndaxte at mu ne dañuy jël lu ëpp juróom-benn fukki million daal koy dégager ci budget bi pour mu jëm ci waajtaayu màggal gi loolu nag mooy tax ba ñi fiy ñëw ak ñi fi nekk. ñu mën a lijjanti seen wàllu hébergement ak seen wàllu restauration lijjanti itam garab yi nga xam ne moom la ñuy jox maladie lijjanti yeneen bagage yi nga xam ne mooy ànd ak moom ndaxte ginnaaw euh, nit ñi fi ñëw di faj ak médicament yi nga xam ne moom la ñuy fajee bërëb bi ñuy fajee dafa war a set donc produit d'entretien yi nga xam ne moom mooy lijjanti loolu dañ koy fexe ba mu yemb euh, article de quincaillerie yi nga xam ne mooy bu dee ay robinet panne wala làmp yu yàqu yooyu ñu mën koo remplacer wala ay buntu ak i serrure loolu tam dañ koy fexe ba mu yemb bu dee ci jumtukaay yi ñuy bindee maanaam kayit yeeg yooyu registre yi ak big yeeg ak encre yi demee noonu loolu yëpp tam dañ fexe ba mu yemb su ko defee euh, ñoom bu ñëwee rek. Euh, dañuy daal di am jumtukaay yëpp pour mën a liggéey te yooyu yëpp fi nekk nii maanaam taxaw na yemm a fi mu nekk nii. alors euh, euh, maanaam mën na mën nañu wax tamit accueil bi moom pare ngeen ko fi nga xam ne moom ngeen war a dalal renfort bi ñu war a ñëw fekk fii ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ak tamit li nga xam ne moom moo jëm ci wàccaay ñoom seen bés seen dund yooyu yëpp pare na ko. waaw dafa am commission administrative boo xam ne bii dañ koo teg. Euh, ñii liggéey ci hôpital bi ci wàllu administration ñoom ñoo koy ñoo ci nekk ñoo koy féete te ñooñu bokk na ci seen liggéey fexe ba ñi fiy ñëw di ay gan yuy faj si ñu fexe ba wutal leen fu ñuy dëkk fexe aussi ba leen jox lu ñu mën a xeewloo ci juróomi fan yi nga xam ne ci lañ fiy nekk di def mission médical pour màggal gi te loolu tam euh, maanaam si d'hébergement yi fi ñu war a nekk foofu yëpp ñu ngi koy saytu ñu ngi def ay euh, désinfection ay désinsectisation di ko pompe di ko nettoyer ba nga xam ne si dina mën a nekk dëkkuwaay yu mucc ayib su ko defee ñoom bu ñëwee euh, kii toppatoo wàllu restauration bi itam moom itam wàcc na def na waajtaayam ba bu ñëwee maanaam ci wàllu restauration bi ñëpp dugal seen loxo ba nga xam te ne bii du tardé te li ñu war a xéwloo nañ ko mën a mën a jot. loolu tam euh, hôpital bi moom noppi na pour mën a lijjanti problème yooyu. d'accord alors euh, pàcc bu mujj moom mooy euh, màggal ak Covid 19 fekkoon na maanaam fii am benn centre de traitement d'épidémiologique moom mooy tamit li nga xam moom mooy CTE bi ak tamit naka ngeen fas yéenee waajalee bërëb boobu ci biir hôpital bi ak li muy xaar dëgg-dëgg pour maanaam mu mën a disponible tamit fonctionnel ñi ngeen ko bëggee. waaw Sénégal jamono yi toll nii mi ngi dund troisième vague te troisième vague bi euh, Touba tam euh, mi ngi ci jël wàllam ndaxte Touba boo limee Dakar bu Dakar jàllee daanaka mooy topp ci Ndakaaru ci wàllu ab dayoo ci wàllu population ba tax na itam euh, amoon nañ ay malade ci troisième vague bi yoo xam bi ñu ngi leen doon faj ci biir hôpital bi ñu nekk ci centre de traitement des épidémies bi ne ci biir bâtiment bi ci biir hôpital bi ñu koy tabax te yeggagul léegi malade yooyu jamono bii ñu nekk nii wàññeeku nañ. ndaxte booy xool lu mat ay juróom-benni malade ñoo fa nekk nii tey waaye loolu nag te tey ñu continuer di jël suñu ay matuwaay pour que loolu gën a wàññeeku waaw parce que euh, cas grave yi maanaam ñi nga xam ne dañu am mbas mi ba pare nekk ay cas grave laaj ay service réanimation yooyu dañu nekk yoo xam ne bi bokk na ci li ñu war a gën a yitteel ci ñu mën a koo faagaagal bu fekkente ne dafay am am nay machines yu nekk foofu ci biir bi yoo xam ne bii bu ki ma soxlaa oxygène dinañ ko defal oxygène bu lay dafa am bu ko war a war nooyiloo ñu defal ko machine boobu te ci wàllu oxygène bi aussi am nañ ci yaakaar bu rëy ndaxte am na benn central boo xam ne bii ministère mi ngi koy waaj indi fii avant màggal gi su ko defee mu yokk ci centrale yi fi bi fi nekkoon ak machines yi fi nekkoon di di liggéey oxygène ci biir hôpital bi xañ na loolu suñ ko boolee maanaam dina fekk tax ba euh, ñu am oxygène bu doy pour que service euh, réanimation mën a am euh, oxygène bu mën a faj ay malade am bloc opératoire aussi nga xam ne mënut ta ñàkk oxygène moom itam mën a liggéey normalement ak service des urgences ak pédiatrie ak centre bi nga xam ne moom mooy gérer ñi am malade corona bi. Mm-hmm. am na labo bu disponible fii nii par rapport ak test yeeg yooyu. waaw euh, Institut Pasteur am na benn camion boo xam ne bii da ko fi indi. Euh, mi ngi ci biir sax ci biir hôpital bi camion boo xam ne bii moom li koy tax a jóg mooy test yi au ñu koy def fii def prélèvement di ko yóbbu ba fële ci centre de jéemul ñu def ko fii ci biir hôpital bi daal di koy traité fii ci biir hôpital bi résultat bi génn fii ci biir hôpital bi su ko defee day tax mu gën a gaaw euh, même camion boobu sax am na ay analyse direct yoo xam ne bi ginnaaw test boobu am na ko mën na koo def ci biir hôpital bi mu génn ci biir ko defee du jotee ak euh, yeneen laboratoire bi nga xam ne mooy laboratoire bi ne ci biir hôpital bi di faj pour malade yi nga xam ne amuñu corona. message bi ngay joxe moom mooy dénk ko ñi nga xam ne ñoom ñooy gan yi leen ñuy jàppale si ak tamit ñi nga xam ne ñoom la ñu fekk muy sa personnel euh, ban message. waaw message bi day mooy euh, d'abord di leen jaajëfal ñoom personnel bi ndaxte dañoo nekk ci dëkk boo xam ne bii dëkk bu spécial la te ñoom xam nañ ko ndaxte seen liggéey amuluñ ko guddi ak bëccëg suba ngoon ñi ngi ci waar wi te loolu dafa nekk loo xam ne bii lu. lu am solo la kon ñu leen ci jaajëfal euh, di leen ñaax itam euh, su màggal gi jë ñëwee ñu gën a yokk li ñu doon def ndaxte màggal gi moom borom màggal gi li mu ci daj ñëpp xam nañ ko ba tax na kenn koo xam ne képp koo xam ne ki suñu borom daal laa defal tawfeex ngay liggéey ci biir euh, dëkk bi bu bis bi ñëwee war ngaa mën a xar sa tànk ci loolu fexe ba def ci lu mucc ayib kon ñoom itam ñu ngi leen ci ñaax ci loolu di ci ñaax itam ñi nga xam ni ñooy jógee ndakaaru ak yeneen gox yi ñëw di fekk si ci paj mi Euh, fexe ba vraiment engagement bi ñu amoon gën ko yokk ba nga xam te ne bi euh, juróomi fan yooyu moo wax noonu nga xam ne ci lañuy def consultation yi maanaam képp koo xam ne kii da nga am jafe-jafe wér-gu-yaram ñu indi la fii ci biir hôpital Matlaboul Fawzeyni ñu fexe ba taxaw ci ba indi ay saafara ci jafe-jafe yooyu mm-hmm. voilà conseil d'administration waaw conseil bi itam euh, dañ ko renouveler le trois septembre bi passé ñoom itam ñu ngi ci su ci ginnaaw direction bi Euh, di ko jàppale itam ceeb lépp loo xam ne bi hôpital bi soxla na ko ci wàllu partenariat wala ci wàllu ay dem ak dikk ak yu noonu ñoom tam ñu ngi ciy def seen jéego te itam di saytu liggéey bi nga xam ne moom la ñuy liggéey fii ci biir hôpital bi te ñi ngi rafetlu tam seen taxawaay ak seen engagement parce que ñoom itam euh, daanaka booy xool ñoom ñooy bopp hôpital bi parce que ñoo jiitu ci kaw su ko defee direction bi topp ci ak ñeen ñi nga xam ne ñooy collaborateurs yi ak yeneen division yi ci suuf kon ñoom itam euh, dañoo am engagement bu am solo euh, jëmale ko ci dëkk bi jëmale ko aussi ci hôpital bi te ñi ngi ciy ñaan sax borom defal leen ci lu kawe seen njort jërëjëf mbokk yi jërë ngeen jëf mu dekkoon sunu gan ci entretien exclusif bi nga xam ne donc jagleel nañu ko muy dem muy docteur Makhtar Lo ci li nga xam ne moom moo jëm ci waajtaay màggal tubaab bi ñoom naka lañ koy fas yéene euh, taxawee waaye itam mbokk yi duñ fa yam dañuy ànd ak yéen ci service yi nga xam ne ni jot nañ ko fee lim fu ci nekk rek ñu juqati fa waxtaan ak chef de service ba ñoom naka la ñuy taxawee ci bés bi ak nan lañu koy waajalee bu ko defee ñu mën leen koo baaxee ci seen site 28 pro mbokk yi jërë ngeen jëf. dem naa ko ngir màggalam gi doon safar di defar. mbooloo mi loo jëf ñu dal koy ful yéem naa ko ngir màggalam gii doon safar di defar mbooloo mi loo jëf ñu dal koy fu donc euh, bonjour tout le monde c'est madame Diop Ndeye Fatou Seck infirmière d'état surveillante de service de jugeance de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni Touba waaw alors euh, major euh, fekk na leen fii tey ci hôpital Matlaboul Fawzeyni ñi ngi donc jëm ci li nga xam ne moom mooy màggal Touba euh, ban dispositif ngeen jël par rapport ak service bi nga xam ne moom nga jiite. Mm, waaw dispositif yi ñu jël bëri na parce que peut-être ne ne c'est pas pour la première fois ñu def màggal. donc instant yi nii ñu ngi si préparatif yi parce que xam ngeen comme màggal J moins 2 J plus 2 ba J à j cinq donc deux jours avant màggal ak jour J ak deux jours après màggal donc euh, moom mooy couverture médical bi donc instant yi nii ñu ngi ci préparatif yi pour la liste déjà des gardes liste de garde màggal bi en plus euh, ñu ngi ci préparation pour médicament yi ak yooyu noonu parce que xam ngeen ne màggal cinq jours yooyu yëpp durant cinq jours yooyu yëpp gratuité la donc si euh, médicament yi si actes yi ñuy defal malade yi et tout ça mhm. donc préparatif yi boobu léegi si lañ nekk nii mën nañ wax ne ne pour nga xam ne dara duñu bett parce que malheureusement on bi actuellement moom mooy nekk def donc ñun ñooy recevoir tout ce qui est accidenté tout ce qui est dans le domaine euh, chirurgical fii la SAU. Euh, ci personnel bi nga xam ne ñoom ñooy ñëw di leen jàppale ak ñi fi nekk naka ngeen di liggéeyee euh, puisque yéen doon defal liste de garde ñooñu ngeen leen intégré wala da ngeen xaar ba ñëw wala. waaw si si si le personnel yi nga xam ne ne ñoom la ñuy wax personnel appui ñoom dañuy ñëw à J ñoom la ñuy ñëw donc euh, J plus 1 ñu ñu après la ñuy départ le lendemain si si ngoon gi la ñuy ñibbi donc dañ leen di intégrer effectivement si liste de garde bi parce que on reçoit les chirurgiens yi nga xam ne ne ñoom ñooy ñëw on reçoit des infirmiers des assistants ba si aide ba ci plâtrier et tout donc dañ leen di intégrer comme personnel appui. mais d' abord personnel bi nga xam ne ne ñoom ñoo fi nekk ñoom ñooy nekk si kaw léegi rek personnel appui bi ñëw donc ñun dañuy commencé ba pare ñoom ñuy doog a ñëw parce que ñoom à J moins un la ñuy ñëw mais ñun dañuy commencé à J moins de la couverture bi di commencé dem ba J plus de donc noonu la ñuy liggéeyee pendant le màggal pendant les cinq jours du màggal noonu la ñuy liggéeyee. alors urgence xam ne am na benn affluence bu fi nekk. Euh, côté accueil bi est-ce que tamit euh, préparé ngeen ko ba nit ku ñëw tamit du fi nekk di jaaxleeg yooyu dëgg waa effectivement parce que comme euh, service bi nga gis nii donc dafa am benn habitude boo xam ne ne moom la ñu am donc boo déggee ñu ne la urgence donc moom mooy service d'accueil des urgences donc déjà malade bu ñëw bu nekk da nga koy accueillir parce que xam nañ ne ay gan la ñuy recevoir déjà xamuñu dëkk bi xamuñu exactement da ngay recevoir ay inconnus da ngay recevoir ay euh, corps sans vie da ngay recevoir ñoo xam ne ne xamuñu dara ci dëkk bi donc accueil bi dafay lii nii parce que boo xoolee à l'entrée déjà dafa am benn li ñuy wax infirmier organisateur d'accueil donc loolu la ñuy wax IOA y a un médecin qui est en plus de cela dafa am le service de triage donc moom mooy kii wu màggal bi léegi rek boo xoolee ñooñu noonu ñoon ñëpp donc ku ñëw munoo fi jaaxle parce que déjà à l'entrée am nga ku lay accueillir pour war la fan nga war a dem déjà di fekkee ne ne même di fekkee ne sapeur yi indiwuñ la parce que di fekkee sapeur yi indi nañ la xam nañ la directement fi ñu lay yóbbu mais si si fekkee yow yaay ñëw directement accueil bi c'est à la porte la ñuy njëkkee ak yow donc di fekkee c'est le domaine médical da dem ci côté boobu si c'est le domaine chirurgical da dem si côté boobu donc accueil bi moom mësuñu si am problème parce que même temps normal amuñu problème pour accueillir les malades Sedina Yankoba Diop, je suis anesthésiste et surveillant de service euh, du bloc opératoire euh, Matlaboul Fawzaini. Alors, euh, monsieur ba donc euh, tey ñu ngi wàccal màggal Touba service bi dispositif bi ngeen jël par rapport ak événement bi ak li fi nekkoon naka ngeen koy waajale. dispositif bi lu may wax mooy hôpital Matlaboul Fawzaini ils sont habitués à ils sont habitués à nu mu couvrir ay màggal. moo tax dispositif souvent du changer presque chaque année ce sera la même chose quoi on est habitué à couvrir tellement de màggal l'a fait pendant quinze ans que problème yi mooy te souvent on a des appuis mais équipe yu nekk sur place souvent dina doy quoi quelques appuis rek la ñuy am c'est au niveau des spécialistes qu'on demande plus d'appui quoi mais pour les équipes des instrumentistes ak des anesthésistes ce sont les équipes sur place ñoom ñooy jouer rôle boobu pendant cinq jours alors euh, mel na ni maanaam ñi fiy ñëw Euh, fekk na ñoom ñu wala yéen fekk nga ngeen waajal seen euh, liste de euh, planification comme ngeen koy waxee wala noog da bàyyi li rek ak seen xel boobu ñu ñëw indi li nga xam moom lu ñu indaale. non non souvent dañu am liste de planification boo xam ne def nañ ko ba pare ñoom bu ñu ñëwee dañuy intégrer équipe yooyu rek permettre ñu un peu ñun ñu souffler souvent parce que bloc bi day fonctionner pendant 24 heures pendant cinq jours 24 heures sur 24 et souvent tu 90 à 100 malades pendant 5 jours temps bi dafa réduire loolu il faut que les gens puissent se reposer équipe d'appui yooyu permettre gars yi di souffler ñii ñëw guddi ñii ñëw suba quoi waaw. donc par kon événement bi lépp mat na. waaw. par rapport ak événement tout est remplacé quoi léegi on attend que l'appui des médicaments ñu egg rek après gars yi mais toutes les équipes sont sur place quoi. yan moo fi gën priorité en général. souvent c'est l'orthopédie mooy orthopédie ak accident yi xam nga routine nu mu mel ak Sénégal trauma yeeg yooyu orthopédie mooy gën a am malade par rapport ak ça mais souvent aussi on a vu que ne temps-ci côté maternité bi durant màggal bi day doy dox fonctionner loolu orthopédie ak a dox durant màggal bi quoi. d'accord merci beaucoup. Ah, ah, gi nag moo ko daa def lim ci digle da ah man la madame Niane Koumba Sarr Gueye maîtresse sage-femme maternité centre hospitalier Matlaboul Fawzeyni bu Touba. waaw madame Niane donc euh, tey euh, ñi ngi jëm ci euh, grand màggal de Touba ku ne xam ne maanaam maternité jamono ji sax am na affluence par rapport ak zone bi fi ñu nekkee. ci wàccaay màggal tamit naka ngeen koy waajalee ak li nga xam ne moom mooy ñëw di leen jàppale ci liggéey bi naka ngeen di collaborer par rapport ak tamit ak seen planning de garde bi nga xam ne moom ngeen di tëral. Euh, merci ñu leen di remercier bu baax ci seen ñëw fii di di di di saytu naka la ñuy doxalee ci màggal gi parce que ku nekk xam na ni ku nekk Touba da ngay am ay gan gan yi dañuy ñëw dëkk bi day bëri ay gan noonu lay bëree ay jigéenu weerul aussi yoo xam ne bu ñu ñëwee dañuy am quelques looloo tax ñun hôpital dañuy réorganiser wu à chaque fois am na déjà cinq jours de consigne deux jours avant màggal le jour du màggal et deux jours après màggal yooyu dañ koy liggéey ñu ñëpp lañuy consigner hôpital dina am ay renfort yu ñëw aussi pour jàppale ñu ci liggéey bi mais aussi planning de garde yi ni ñu façon bi ñuy garder dañ koy réduire parce que affluence bi dana bëri surtout période bi ñu nekk parce que dañu nekk ci période de nawet période boo xam ne même bu dul màggal sax maladie dañuy bëri maternité loolu tax dañuy réorganiser waat suñuy garde parce que ak màggal gi ak période bi ñu toll xam nañu dañuy recevoir malade yu bëri réduire durée nu mu tëddi repos de garde yi la ñuy réduire renforcer équipe yi parce que avant dañ daan réduire temps de travail bi mais kon suñu fréquence hôpital bi day bëri par rapport ak circulation bi nekk ci dëkk bi duñu mën a assurer loolu moo tax léegi dañuy maintenir système de garde bi mais réduire repos yi renforcer équipe yi comme ça xam ni liggéey bi dana atténuer wu tuuti ci kaw sage-femme yi donc dañuy def chaque fois 8 heures ba 18 heures et puis 18 heures le lendemain nga noppalu 24 heures ñëwaat renfort yi dañ leen di dugal ci équipe yi comme même pour renforcer leen waaw circulation bi aussi dana xaw a metti tuuti dafay am ramassage mais malgré ça. yenn saa yi am na ñoo xam ne dañ leen di wàcc ci côté bi du ñu mën a suivre ramassage bi parce que heure bi oto biy jaar du leen arrangé wala du fekk ñu génn seen kër wala aussi dañuy am ay gan seen kër yi bëgg leen toppatoo ba pare bëgg ñëw liggéey si moo tax ñu bëri en général dañuy des si gannaaw donc am ay tuuti retard loolu tax surtout ñuy renforcer équipe yi bu ñuy ñëw ñëwee tardé ñi ñëw dañu ñëw à temps pour relever équipe yi war a wàcc i gan. Euh, ci côté bi li nga xam moom bi ak euh, euh, di leen jàppale euh, yéen dafa mel ne tamit ay jafe-jafe du ngeen koy nemmeeku wala moom ngeen ëpp lu ngeen di dajal fii ci euh, service maternité bi. bon jafe-jafe yi mooy surtout maladie danañ yokk benn ñaareel ba dana am ñoo xam ne dañ leen di jël ñu ñëw fii ay gan yoo xam ne dañoo ñëw màggal si am ay jafe-jafe ñu indi leen ci maternité bi yenn saa yi du ñu am accompagnant du ñu am ku ñu àndal du ñu am ku leen toppatool seen i garab du ñu am ku leen jox sax yére yu ñu changé loolu ñun ñoo koy jël yére yoo xam ne danañ mën changer di di wutal leen aussi garab yi en général dañ leen koy jox produit yi hôpital la koy joxe pour lever l'urgence ku ñëw rek sa premier médicament sa premier médicament dañ la koy jox pour lever l'urgence mais aussi am na yenn garab yoo xam ne duñ ko mën a jënd donc dañuy organiser wu suñu biir xool nañ leen di jàppale toujours parce que ay nit la yoo xam ne dañuy ñëw soit dañu am accompagnant soit dox ba daana ci mbedd mi ñu leen indi dañuy réer ci mbedd mi am ay difficulté ñu indil leen ñi ñoo ñëpp dañuy obligé organiser wu ñun suñu biir pour mën leen toppatoo bu baax ndax dañuy wax. da ngeen di dajal souvent ay cas césarienne ci bëri. waaw danañ bëri moom parce que traumatisme yi dañuy bëri problème yi dañuy bëri ñi am hypertension dañuy sent xam nga màggal moom testes la ak courte courte gu bëri nit ñi duñu dallu dañuy toujours dañuy nekk sur euh, sur des activités donc en général traumatisme yi dañuy bëri. pathologie dañuy bare donc césarienne dañuy gën a yokk. Mhm. ban message ngay lancé waa di di ñaax xale yi rek surtout pour ñu bañ a euh, éviter retard yi parce que aussi ku nekk boo nekkee hôpital di nga bëgg en général dem xool say gan tuuti mën a nekk ak ñoom donc di wax xale yi ni nañu góorgóorlu ci euh, réduire en tout cas retard bi gan yi moom mënuñu leen bàyyi kër ga waaye foog ñu def ko ndax liggéey bi moo ko laaj te ci màggal la ñu nekk il faut ñu ñëw toppatoo malade yi. waaw lancer un appel aussi si ñiy màggal si te nga xam ne dañu nekk ay jigéenu Wélul que toujours fu ñu toll mënuñoo bañ a màggal c'est vrai am na ñoo xam ne mënuñoo bañ a ñëw mais bu ñu ñu toog benn place di bañ nekk di circuler si mbedd mi ba dara di leen jot ñu leen di yenu indi du ñu ànd ak kenn duñu am ku leen dimbale moom ci boppam daana togg ñamam tàngal kafeem di bégal mbooloo mi yoon maa ngi tudd madame Mbaye Fatou Tamba infirmière d'état major en service pédiatrie Matlaboul Fawzeyni de Touba. alors major donc tey dañu leen seet si ngir li nga xam ne moom moo jëm ci màggal Touba bi waajtaay bi euh, service pédiatrie bi euh, dispositif bi nu jël ak tamit seen planning de garde ak tamit ñi nga xam ne moom ngeen di xaaree euh, bés bi naka ngeen ciy demee. ah alhamdulilah rek la ñuy wax avant tout parce que màggal moom ñëpp ne màggal ñun ñu nekk Touba ñoo ci gën a sawar. par rapport à ça, on a l'habitude déjà d'organiser cet événement comme ça se fait chaque année, avant l'arrivée du Grand Magal de Touba, tous les dispositifs, tous les dispositifs ont été mis en place. Dispositifs yëpp jël nañ ko pour mën a assurer couverture bi comme il le faut que ça soit sur le côté administratif que ça soit sur le côté professionnel. L'administration moom sa revient du domaine des SSI par rapport à la gestion pour gestion interne service bi calendrier de garde bi a gestion personnelle bi tamit. matuwaay ci war yëpp jël nañ ko balaa bés bi di ñëw parce que yàgg nañ doon organiser magal te chaque fois dañuy def lépp pour matuwaay yi ak lépp lu ci war daal ñu def ko balaa moo yëg si. yéen seen bërëb bi ay xale lay saytu euh, te xale kon ku nekk xam na ne maanaam moomin la euh, maanaam téyin bi ci boppam ak tamit euh, taxawaay bi. par rapport ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw tamit di leen jàppale naka ngeen di fonctionner ci jamono jooju. waaw comme ni ñu koy waxee rek màggal moom dafa am spécialité bopp particularité boppam donc ginnaaw dafa am particularité boppam kon fonctionnement bi day xaw a changé tuuti mais ñu ngi sant yàlla di gërëm SSI bi ak ñi mu àndal ngir chaque fois dañuy jàppale ci yokkumu personnel bi pour ñu ñëw renforcer équipe yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk parce que dañuy xam ne période màggal bi demande bi day gën a yokk parce que ñii ñëw di màggal si parfois day arrivé ñu ñëw ba yegg si am ay feebar yi nga xam ne day am dal xale yi surtout période boobu dañuy constater lu ci ëpp xale yi dañuy am problème intoxication alimentaire loolooy tax demande bi day forte surtout jouru màggal bi ak lendemain màggal bi surtout l'affluence bi di gën a bëri te tamit période boobu tamit dañuy constater que parfois tamit ak occupation parents yi dañuy dem ba parfois xale yi duñu leen teel indi hôpital ci période boobu ak préparation màggal bi donc période bu ñuy dugg ci biir màggal ba xale yi dañu fi ñëw dans des tableaux yi nga xam ne de crise convulsive yaram bi tàng ba mu ëpp wala muy dem bay crise wala léeg sa maari di daal kon ba période boobu la affluence bi di gën a bëri kon boog mu ngi siy sant administration bi ci matuwaay yi nga xam ne moom lay jël chaque fois ngir accompagner ñu ci prise en charge moomin yooyu ngay wax parce que comme les adultes ñoom it dañuy soxla période boobu accompagnement bu intense ñun dañuy hospitaliser ci màggal bi ba hospitaliser ci hall bi sax avec la mise en place des ko ci biir ci biir olo pédiatre bi parce que dañuy dem ba 55 lii yëpp day fees ba dañuy jël parfois Lipiko yi actuellement sax indi nañu Lipiko ba teg ko ci biir Lipiko yi nga xam ne bu ñu demee ba fees moom la ñuy jël maladie yi ko ci teg. Mm-hmm. loolu yaakaar nga ni tamit euh, maanaam euh, am na saytu boo xam ne nii da ngeen ko ci bàyyi xel par rapport ak bu fi Lipiko yi nekkee. waaw dañ ko ci bàyyi xel lu bari bari bari bari. dañuy jàpp ne lu ngeen exposé la te nit ku xamut. day jàpp ne maanaam dañ fee teg malade noonu rek dem ban matuwaay lay àndal. li ci ëpp mooy comme man en tant que responsable de surveillant de service dañuy expliquer accompagner lan moo waral ñu leen di teg ci lipiko yi parce que ñoom seen bopp sax ñoo ko gisal seen bopp bu ñu demandé ni malade bi de moom lan la soxla ma ne ko wax dëgg yàlla bëgg nañ la jox lal mais malade bi feebar na mënuñu koo renvoyer kër ga te sonn na lii donc moo fi léegi da ngeen ñuy muñal ba saa yu ñu amee ñu yëkkati malade bi teg ko ca lal bi mais pour l' instant situation oblige on est obligé avec demande bi nga xam ne moom moo forte ñu jël malade yi neexuñu nag di leen teg ci lipiko yi parce que moom moo fi sës mais day fees ba mu ëpp surtout cette année ça sera beaucoup plus particulier parce que dañoo nekk ci extension am na saal yi nga xam ne déjà dañ leen condamné dañ nekk di liggéey ci biir salle yooyu actuellement bi may wax ak yow nii nii nii nii y lii yi nga xam ne ñu ngi ko toog ñu ngi ko teg ci hall bi te déjà fees nag malade te màggal ñëwagut ça ça que condition ren moom mooy gën a ñetti que yeneen année yi ñu amoon sax. alors ban message ngay lancé par rapport ak ñi nga xam ne ñoo ñëw di leen jàppale tamit ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk di liggéey nan lañu war a jaxasoo booloo liggéey. message bu may lancé mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk comme personnel bi. ñu xam ne mbir bi ñun ñoo ko moom kii ñëw dafa ñëw pour dimbali ñu mais màggal gi moom suñu màggal la malade yi suñu màggal malade lañu ñii ñëw dañ ñuy jàppale bu ñu paree tamit malade yi du ñu ñibbi dañuy toog kon boog ñun ñi nga xam ne ñun ñoo moom mbir bi ñun ñooy jàpp ñeneen ñu ñoo jàppale ñu xëcc mu dem. mbokk yi jërë ngeen jëf yéen ñuy toppoon ci seen site 28 pro toppoon ngeen ñu fii ci biir hôpital Matlaboul Fawzeyni am ñu entretien bu ñu defoon ak ki nga xam ne moom mooy euh, le directeur Mokhtar Lo ci li nga xam ne moom la ñu jëm ci wàccaay màggal Touba waaye tamit ak différents service yi nga xam ne nii ñoom ñu la gën a soxal ci jamono ji nga xam ne moom mooy jamonoy màggal gi. gannaaw loolu tamit gis ngeen ne bërëb bu nekk ci service yooyu dem nañ foo waxtaan ak nga xam ne moom mooy major bi ci ni nga xam ne noonu la ñuy waajalee ñoom tamit nag seen euh, dispositif de garde ak tamit ci ci bés bi. mbokk yi seen site 28 pro mi ngi am mbégte di leen jaajëfal ci màggal Touba 2021 bi. cant ak ngërëm na leen dig daje ci yeneen jotaay maa ngi àndoon ak ci maanaam wàllu caméra bi Cheikh Bey ci réalisation bi ki nga xam moom mooy Bekkaay Ndiaye ci présentation bi Sidi jaxate dig daje ci yeneen jotaay yoo xam ne ni ñeel na màggal Touba.